maa ngi ciy jiital ñi nga xam ne nag ñoo ma jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom lañ doon def mooy déposer sunu candidature ci conseil constitutionnel pour mun a bokk ci jongante bi nga xam ne dañuy tànn li ñuy wax président de la république ma nekk doomu Sénégal gis sama réew ni muy doxee. ma am ay ambition pour sama réew ambition yooyu ma bëggoon aussi séddoo ko xalaat boobu ak sénégal yi nga xam ne ñoo gëm li ma gëm ay ati ati ngi ne maa ngi liggéey ci loolu defar nañu nag suñu dossier déposé nañ ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel nee na suñuy dossier am na rëq-rëq yii baaxul war nañ ko defaraat may wax problème caution bi ma dégg ñuy wax war naa leen ko léegi déposé nañ ko ba ñu jox ko joxe ko loolu suñu këyit mat na li ñu rejeté mooy ci problème mu parrainage yi problème mu yi nag nee nañ ma de li nga joxe parce que juróom fukki téeméer juróom fukki junni ak ñett lañu joxe ñu ne ma yow li ñu la valideel mooy treize mille fukki junni ak ñett daxal nañ la fanweeri junni ak juróom benn pour nga matal donc ñu ne ko corriger loolu may wax ne man dama mus a wax ne dama gëm justice moo tax toujours damay wax nit boo koy jugeloo sax nga di ko jugeloo ca la koy jugeloo nga jox ko instrument bu baax ca loolu rek la mën a juger parce que dafay juger selon sa conscience ak li matériel lañ leen jox mu am ñu yore matériel mooy informaticien yi def ci ay logiciel mun a càmbar li nga xam ne mooy liñ leen jox bu ñu ko càmbaree jébbal ko ñi nga xam ne ñooy àtte bu ñu génnee ne lii la ñay àtte loolu rek lañ mun a moo tax bu juge yi laay wax ñooñu dama leen gëm kon ne di leen gëm ndax lu tax dafa am ci ñoo xam ne ñu ci bari dama jàngandoo ak ñoom ma xam seen capacité wu résistance ci yenn yi moo tax ñooñu ñoon wa tax di wax ñi tax may wax mooy ñi nga xam ne ñoo yore instrument yi nga xam ne mooy tax ñooñu mun a juger ci lu mucc joxe nañ ko nag wax nañ conformément suñu gëm-gëm ñun mooy yoon dañ ko defaraat jébbalaat leen ko seet ndax dinañ ñu valider wala du ñu valider wante damay wax rek leen am naa lu ma gëm ci suma réew xam naa lu bare ci suma réew ñu bari dañ may wax sax du ma wax parce boo mosee yor réew wala nga mos a yor ay réew te yoroon naa juróom-ñetti réew dangay ngay am benn auteur boo xam ne auteur li ñuy wax auteur de responsabilité nga xam ne am na yoo xam ne bu doon dëgg la sax am na loo xam ne doo ko def pour sànq sa réew nga sànq sa réew ba pare for ko di ko defaraat musiba bi ndax gis naa réew yoo xam ne yu ma yoroon gisoon naa la fa xewoon moo tax ma gëm yoon toujours danañ defaraat liggéey sama ingénieur yi ñu ngi ci dem nañu ñu ngi ciy liggéey danaa ko déposé waat wante may wax ñu bëgg ma bokk ci élection yi xayrun ñu bañ ma bokk ci élection yi dinaa ci bokk soit directement soit indirectement directement mooy ma nekk candidat indirectement mooy ma joxe sama xalaat ak ñeneen wax li ma xalaat te li ma xalaat ci Sénégal bare na ko xalaat ma bokk ñoom gis-gis ci ñu bari du ŋàññi kii wala kër parce que nit aussi bu fekkee ne da nga da bokk ci ñi nga xam ne ci ascension sax def nga ko yow doo ko ŋàññi di ko xalaat te ci administration bii ñu yore tey commencé ci premier ministre ba ci ñeneen am na lu ma nekkoon ak ñoom ci administration premier ministre suma directeur général la woon ñeneen ñi tam kazalika wante li ma leen xamal du ñaaw laa leen xamal mais nag damay wax ni ma leen ko waxee woon fii ci tubaab président de république mooy chefu administration premier ministre mooy jëfandikoo administration yore xale yi nekk administration ñu leen di sant ñooy liggéey sunu réew nag ñu ngi ci di tabax histoire tabax histoire ndax élection yi ñuy def defe naa ne bu ñuy xoolaat démb euh, amaguñu woon loolu ndax président buy dem ne damay dem war a organiser ay élection def naa ne c'est la première fois wante nag am nañu ay présidents yoo xam ne aussi dem nañu aussi avec élégance élégance bi mooy war na nañoo dem def nañu élection gagné nañ leen ñu nangoo taxaw ne gagné nañ leen ñu ngi dem bu yàggul gis ngeen ko fii ci Libéria président ba bañ ko gagné dafa taxaw balaa ñuy génne sax résultat yi mu ne gagné nañ dem na loolu mooy Afrique bi ñu bëgg ñun mooy Afrique boo xam ne dañ koy respecté fii ak ci bitim réew parce que nag xam-xam nekkul rek xam-xam feneen la nekk xam-xam fépp la nekk te suñuy doom ñoo nekk foofu ci biti di yore lu bari moo tax may wax ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ci réew mi buñ ko yëgee buñ ko yëgul nañ jóg taxaw ci élection yii te may avertir candidat yi ñëw ku ci nekk xool ba nga xam ne li ñuy def ñu def ko ci bi nga xam ne mooy bu jëkk sax nooy defee ay élection yow nga yore administration comme ni ma leen ko waxee léegi loi bi ne ñun ñi nga xam ne ay candidat lañu sax war nañu am potentiel candidat lañu war nañu disposer fichier électoral kan moo ci am fichier électoral kenn loolu jaru ko ay yëf la yoo xam ne jaru ko fichier électoral kenn ci ñun amu ko mu nekk premier kii boo xam ne mooy ñun yemuñu parce que ki yore administration wóor na wóor yàlla ne ak lu ñu la munti wax yore na xam na fichier bi lu ci nekk ñun na xamuñu ko te loolu loi bi la wante loolu yëpp amul solo man bañ ma ko waxee kii yooyu dama ne loolu man c'est pas grave parce que defe naa ne ñii am nañu xam-xam ak auteur bu nga xam ne dañuy bàyyi nit ñi ñu def élection yu rafet yu set yu leer yu mucc ayib ba nga xam ne réew mi réewu jàmm lañ ko xamee woon réew mu jàmm lañ mucc ki nga xam ne mooy sunu président aussi ñu koy ñaanal mu génn génn bu rafet. parce que loolu moom moo ko mooy cëram liggéey na li mu mën foofu la xam-xamam yem loolu la mën keneen bu ñëwee itam day def buy dem itam foofu la xam-xamam yem keneen ñëwaat defaat ay doomu Sénégal jël réew mi defar ñun suñu ambition mooy tabaxaat beneen Sénégal jox li ñu li ñu Sénégal jox ñu jox ko suñuy doom suñuy set ñoom ñu mun a yore Sénégal Sénégal nekk un pays li ñuy wax pays souverain moom boppam bu wóor ndax ay xam-xam ñàkku fi Sénégal raflewul ay xam-xam borom xam-xam donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax di sant ñëpp di gërëm ñépp di santaat ñi nga xam ne ñoo ànd ak man di liggéey boobu ba léegi ma di leen masaw ndax def ba fii ñu ne la trente six mille rejet nga am sur cinquante trois mille bon yoon ba léegi may nañu ñu defaraat ñu ngi defaraat loolu laa bëggoon wax wasalaam